na nag nga yaakaaroon te di nit ñi liñ la tegal maa ngi ci ay problème yu fees dell sama bopp bi xam naa yow moom yaa ñàkk jom ci xar yi ba nga fi ñëwee ba léegi juróo te kii yaa ko fi jiitu te jur na fi ñaari doom xam nga da ngaa jaasir xam nga da ngaa ménopause jaruma xool. si civilisé laa ci boppam. pare di bàcc ay ndox doo am omo doo am dara ci ndox ndox eh waay Samba wax nga dëgg bii nag mooy tës moom mooy egg na gën def bu eh taxaw eh, taxaw lii nu mu dama ca problème. ndox mi nga wala sama basang pour lan la. ma la damaa tuur seetu fu ndox di. jaar yow nga salte yow yaa salte yow xam nga lu bëgg xamal. nga nga ko ba mel ni mel man dama wax dama tontu lu leer laa la wax. dama dama eh. tontu. yow da nga am dof wala la ma lay eh, wol sa maami nijaay la wax wol ku la neex nijaay imbécile ku la ngay gis ma basan bi e baba yow eh, eh, aga xewi xale yi pare la ñuy wax wala papa wala bébé mu naan la bàyyiwuma la bàyyiwuma la bàyyiwuma la wol ku la e merde xam amalu njambur baal kii ba baal kii xam laa la yow fatt nga nu de man la boo sa loxo laal de tànk nga nu laa wax yow yaa ñu la soo paree wax ma dugal nii soo paree wax ma dugal nii ba sa loxo laal dugal nii ba sa loxo laal di ko. ebe eh, suñu ci kër gi du tax nga fàttali laa la wax. boobu nga wax lépp. naqari nga deret trop. tant nga nu. soo paree wax ma. dégg nga naqari nekkal. ku la bali bët nga xool kenn mënu laa tàgg ba doo tooy. may ma sama jàmm laa wax fii sama kër la lu ma neex moo fi am ah. bu la naqaree wuti foo nekk. ni ma la guree. bon man dama laa gëq man xool ko mu yagal yagal mel ni ku yàmp nga mel ni xaru sarax ak say weex. dégg nga. booy bëgg a dee li ma neex rek moo fi waaw waaw baax na baax na billaay billaay da ngeen da ngeen yàqu yàqu ndax gone yi gone day wekk mag gudde gone daal bu bëggee gudd fan day wekk waaye nag wóor na ma ni def ngeen lu ñaaw du ma ci wax dara eh, Fallou ci biir man de wóor mosuma gis boo yu mel ni yéen kenn yor na amul éducation de vie amul éducation de pa amul éducation de mère soxna si gone boo leen yore da nga leen di yar gis nga gone yi niñ ma def dafa ñaaw ah. dama naqari ba ci kanamu sëñ bi bàyyi sangar ñima jël sama njaay mi jóg ko bu dee da nga len tek ci axe ndax li nga muro di di sel ne nga da ngaa sellee yaay kon nañ sel yaro dedet non non bu ñima ma dañoo xamul nii def ni def nak ba ma mer ta bu ma mere de li ma waat li ma nit nit ki buñ ko xamul da ngay tey ci mom aduna ku aj ku ne day bañ ku gis nga ma sama njaay meeg sama bolog bo yef bi sama caaye jii bu mu tax no yopp ma ndax bu mu wutul sama fus loora xewar bo la ko def ci lama ci def woote ci bisimi kap-kap laxi kap-kap raxaani kap def ci la ma ciy def wala ma dem fa ma war dem fa ma yaakaar no defal ma ñoom ñii bu subaa damay màjjaay eh, du ma la ci xool ndax ngeen def avant ba alaafee ngeen di jégul li ma la a xamal mooy buñ moytu paa sol boro ji amarsa mi laay ñii di tafar tafari ñii fu ñuy mujjee di nogum nogum mi màjjaay kër gi dara nuuf te lii lépp looloo koy ma ci wax nag bu ma ñibbee dinaa xam ne may jëflante ñoom jéggal soxla si man sama xol dafa laaj waaye xam nga ne man mag mii xam du ma la def noonu jéggal leen rek déggal leen waaw nah, man nag dina dina xam naa ci leen de nañ ci teey gone yi buñ ci teeyut danañ am musiba ndax gone day ànd ak yar wek mag bu ko jox ko jox ko cër bu ko defee mag mi suturaal ko di defal ay ñaan sama mbu mu oyof mii nag buñ ma ci moytul ba ma dem kër ga ba wut ba wut laaloy mbi ba laaloy yorox lan wut sama sungu fu ba ma dem dan maa xamut gis nga sama caaye ji ak sama nii ma oyof ni bu mën naa leen a sànq mën naa leen yàq almet nag dul taal boppam buñ bàyyiwut marchand bi buñ gis muy tafar tafar yi jaay kenn ku ne jóg ne lañ dikk di ko tooñ ak nangam danaa leen yàq danaa am nu leen def parce que man li Lima lima ma li ma yor xam naa ko baax ndax fi ma sukkandiku dama koo xam sukkandiku naa fu wér ay sëñ bi jéggal leen rek man soxna si man ci say wax sax ni la déggee nii sëñ bi dafa mel ak nga loo xam te man kat damaa am problème bu rëy bëggoon kuma ma ci jàppale bu baax waaw hmm. mm-hmm. loolu léegi man daal li ma la mën a dimbalee mooy am naa fu wér foo xamante si nii fu wóor ndax nee la sama biir wax am naa fu ma wéeru mm-hmm. fa ma wéeru danaa la fu yóbbu nu wér la fa te say mbir dana dëgër ndax kooka taar kala sama xaala xina sëñ bi de man boo ma si jàppale woon dina ma baax sëñ bi ma yor kay alliwam alliwam ma kay bu xasse ba bind ba xoss dox la nga dem bo àggee rek mom fo feug katcha ko passé non day bax yow kay nasab xosset insha allah dina la taxawal ci mbir bu bax ta nga yar say goné bu mu bo ma lijeenté ba ñew fa mané nga fexé fexé fexé ba ba ma jël nangam nangam yooyu yep dana faj sëñ bi defal lool lool la lay defal nangul na la ko way yaral say gone ndax yow yiw nga am nga am nga yar am nga am nga dal bo ñewon taakale ma duma la nangul li way nit ki lu ko yar muy du ko ko xañ nga yaro tax nak ma dila ndax koku yobu fa nit sax yombuma day ndanan ñu ma kilifa yu mag a koy seet si ay imam Mor Fuun ay Samba Fuun ay Galas Fuun ay nangam ku ëxlu Fuuneen ña commencé ci Galas Fuun ñoom ñëpp moom la ma leen ñaanal ak ñu bëree bëri kon nag boo dikkee ma bëgg la faa yóbbu xamal la yóbbu waaw nanga ci teey nag bu baax te saa boo demee ak jàppale am ci moom man pare naa man Cheikh Abdou bi man nag fu ma mën xam ne dinañ mën a fu ñu foo fa a déggante comme numéro bi ak yooyu comme numéro bi waaw waaw man nag da yéewuma ci ay yooyu waaye yore nga yore nga am na bu ma kii fii de indi ma xoolal la yow ya de daa mel ni sa téléphone bi sax da ngaa mënul xool bu baax indi ma xoolal la ah léegi da ngay fi kii sa foofu rek ba bii de xam naa daa ma bindal la dama doon déglu xalaas mu toj xalaas waa bëgg ba xaar ma bindal la sama numéro daa xaw na xam Wah. Wah, nga cee bind waaw moo ngi nii bind naa ci sama tur léegi xam nga nu def amoon wah wah bu ñaa ma bippe la dégg nga waaw 535 mako yilif bo demé bo heure bo jekkee bo ma ci bipee rek bu neexee yàlla danaa la jël ci dégg wala nga fekk ma fa rek dégg nga. benn la baax na ñoo far. jéggalal xalé yi jéggal na len duma len wén duma len lora duma len du duma len leung du ma duma len def lu ñaaw nit day amuk dal amuk yar yi la nongolo di wax marchand mi lay son nañ lool waye nak lo gis rek ak dal wa maa ngi waaw